dog bu gudd dog boo xam ne bu doy ni ko temps maye rek ni mhm. ko na comme ni ma waxee bu jublu penku bu ko mënee ànd ak njàpp mhm. Eh, mhm. ci la barke bi gën a gaaw ki nga xam nag dafa bëgg a ci yàlla ku sikkar ba jot kii bi am ndigal moo koy jox jox ko lim jox ko waxtu yu mu koy def kooku itam daf koy surveiller ni médecin bi di surveiller malade bi bu ko nee yokkal mu yokk bu ko nee wàññi mu wàññ mhm. bu ñu seetlu ko jaaxal ñu wax ko ko mu ne ko defal nangam wala mu expliqué ko bu ko ko warul a expliqué daf naa ko defal nangam rek du ko ko expliqué gun ba moom koy war a expliqué mu mën ko ko mhm. lay jaar étape lay jaar waaw ay étape lay jaar mhm. ba set wécc wécc wécc wécc amatul bu sere a ŋàññ te bëgg na yàlla bëgg koo xam ne amatul dara ci àdduna lu koy kileel lu mu dana kooku nag mooy kii jëm ci yàlla boobaa nag ay martaba ñu am عارفوني صديقوني بنسات صح يوم ني ايرارشي سي ني فا ديما كو خام ني فا ديما دون كو خام ديغنت نقباوي نجباوي او تادي عبدالي الوكيل الاماماني باتي قطب الخوص باتي افراد العالم الى اخره لكن خمنا دني ورا كونكلور سونو سونو ايميشن بي ميغ مي بغي ياغ كون ني غون تي دونك ميساج كورانيك ماغري لي ديغريسيون سي انريشيسان لكن بولون كونكلور ايميشن بي ملني تي لي ميساج كورانيك نو كونكلوري bu doon conclure bu ma doon conclure li tax gannaaw alquran moo di kii te alquran di ko tax a jóg mooy nit ki texe àdduna texe alaxira àdduna ci boppam alquran dafa ñëw ni muy defaree nit la war a defaree tam àdduna jóge pour defar àdduna ndax bu ko defee nit ki melo yi ma waxoon xam ne alquran day forme jullit bi en général kon forme na àttekat bi formé na jàngalekat bi formé na soldat bi formé na ministre bi formé na président bi formé na itam parents yi formé na itam xale yi ñu ci mag formation boo xam ne doo tooñ mukk da wattandiku tooñ ndax xàq yi ngay wattandiku ëllëg mu ne jëf ju nekk am na conséquence lan loo xam ne boo ko jëfee nit dana ca loroo mel na nga révolte tey woo nit ñi ci révolte bi. ñu fab gànnaay yi ku ca dee yaa ko gàddu. naka noonu nga jàngal nit ñi lëndëm loo xam ne du dëgg ñu fas ko. lor yooyu yëpp ndax. innamal mu'minuuna allaziina izaa zukira llaahu wajilat quluubuhum wa izaa tuliyat alayhim aayaatuhu zaadathum iimaanan wa alaa rabbihim yatawakkaluuna loolu la alquran indi pour nit ñi meloo noonu ñu wax ne ñoom dongay ñi gëm. Mm-hmm. mooy ñi nga xam ne waxtu bu tuddee suñu borom rek mm-hmm. seen xol yi dal di. tiit ragal lu tax rëyaayu suñu borom ak màggaayam ak li mu sant te matal ko jafe lool te xam na lu ciy mujj ak li nu tooñ ak ni nu ko tëlee joxe xàqam ndax fooraayam googu mu foor ak rëyaayam gi ak moom gi mu nu moom te ak suñu sàggante gi di fàtte di tayel di nelaw nelaw yu ëpp di lekk lu ëpp di tooñ di lekk lu léwul yépp buñ ko fàttalikoo buñ tuddee yàlla daanu tiit ndax daanu daje moom mu leer na daañu daje moom kenn ku nekk dara dox seen diggante kiiraay benn kiiraay du dox sa diggante ak moom mhm. te li nga def lépp amul dara lu ci luñ ci bindul lépp danga nga ko gisi mhm. lu mu doon ba ci bën bën pusa da nga ko gisi te sa moromu doomu aadama moo amee lu toll ni bën bën pusa doo jéggi siraat te fay doo ko ko mhm. dégg nga ki nga xas ki nga saaga ki nga jëw ki nga lekk alalam ci lu dul noonu ñooñu ñëpp léegi gannaaw waxtu nit ki bu ñu tuddee suñ borom rek ndax ngëmam màggaayu yàlla day dal di teew ci xolam mu tiit xam ne mënul dawaaram am na dawaar yoo xam ne war na ci loosam te moom mënu ko lu leer mën a yàlla rek ko mën a waaye nag li ko war mooy na def li mën lépp bu ci dara desee rek mu ngi ci xatar wa jilat qulubuhum wa iza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan buñ jàngee alxuraan mu dolli leen gëm ndax ni ko waxee woon bàyyi na nu yu ndax li muy cadre bu exécutif dikk ak euh, xataayu mm. kii bi mm. moo yu ci bari yu ma mënoon wax yu ma bëggoon wax ma mm. ko mën danaa am defee alquran nit ki bu fekkente ne defaru na mel na ni mu war a mel aaya alquran ji mu dégg rek dana réef moom xam ne euh, Sidna Ousmane dégg na ko jàng alquran mu daanu fi suuf Sidna Omar noonu daanu xam mm-hmm. bu ñu ko dee jàng ki nga xam ne xam na ko dëgg yaramam day tiit am na lu ma waroon wax sax ci studio alquran waaye mm, tëb naa ko su may boo bàyyi ko ci mm-hmm. yonent bi sa sallallahu alayhi alquran di moom ak moom mm-hmm. eh, ak radio yëpp ak studio yëpp mm-hmm. eh, xaju fi dañ ko weesu waaye nit ki na del na fàttaliku dee na koy def ci kanamam pour mu bañ a tooñ du tax diggante mag nag liggéey dafa war a jëf mm-hmm. ndax jëf ci ngëm la bokk mm-hmm. ndax dañ ñu ko sant wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu mm-hmm. i'mal li dunya kaanaka laa tamut abadan wa amal li axirati kaanaka tamut gadan booy jëf ci jëfi àdduna bi da ngay mel ne ku dul dee lu ko waral maanaam jëfaloo sa bopp rek da ngay jëfal ak képp ku si jëriñu def naa ko ngir yàlla booy jëmbatee garab gi jëmbat garab gi ba muy ñor mën na la fee bañ a fekk waaye ñu lekk ci meññeet mi muy nit muy mala muy picc même bu daanoo ku xam bu matt mi wala li ci euh, kii picc yi ci nëbboo li ñuy toog ci kër yeeg lépp ay kii la yoo xam ne yaa ngi mel ne sa bopp boo ko doon defal sa bopp da ngaa ne ku dul dee mukk wala ngay tabax tabax boo xam ne xamuloo kañ lay ràpp da a dem ay téeméeri at mooy amal li dunyaa kaanaka laa tamuut abadan dafa fekk na nag doo ko jëfal sa bopp rek da koy jëmal rek ngir defal li ñuy wax taamir dunyaa li iradati laaxirati tabax àdduna pour na ma ca pour na ma àlaaxira bu ko defee ñii ñëw ñëpp dañ ciy jëriñu yool ba di la fekki kon daal pour conclusion. jullit bi wax na fàttaliku dee. fu mu toll ndax mooy tax mu ragal def liñ ko tere. ragal a neenal jamono. neenal jamono mooy perte de temps. di seet ñi muy toogal ak ñi muy waxal béréb yi muy dolli ko mu di fa dem. ak lépp lu koy jëñ ndax lu baax du doy. mu wattandiku nag lépp lu bon na ko jéem a sori fu mu toll def effort fu mu toll. Eh, na xam na nag yàlla moom. mënees na wax fooraayam doy na waar kenn xajul ci àdduna bu ko dee bàyyi xel war ko mënu ko jox xàqam ci màggal waaye mu def lim ci mën lépp wattandiku moroomam yi kon dana wattandiku boromam wattandiku moroomam di delloo si xelam leen waroon waxtaane tam jamono bi mayuñu ko muy euh, tafakkur maanaam muy méditation méditation lu riche la yoo xam ne moom itam euh, ma na émission boppam kon daal xanaa gi yéen